Cheikh borom produit yu bax yi fajum cosaan ak di defar produit yu bax ci ay plante 100% bio yow mi góor wala jigéen nga am feebar bu la jaaxal lool seetil Cheikh moo ci ay nga amee ay tànk yuy métti ndoxum siti kenn mënu ko ci wala nga amee hémorroïde Cheikh moo ci gaaw prostate jooni jooni la koy faj nga bëgg am jëkkër wala jabar nga am biir bu rëy produit Cheikh da koy dindi nga nekk jigéen bëgg forme Cheikh daf lay defar ba nga doon jongoma foo romb ñu xoolaat la yokk awra kattan ventre plat mauvaise haleine biir buy métti bopp buy métti resserré vagin ubbeeku wala bayre ku la gis sopp la drépano karaw Chat, chat buy métti ci 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 wala Instagram Cher Produit l'officiel. kër yoro ngin vacances su ñankula kër yoro vacances su ñankula kër yoro yoro lu mu doon ci ñanku nijaayu ñankula ey sa du bi tap tap sar gege gege gel ge nekkaale yoro la xoolal gi ci kër gi jaaxal nañu góor gi ci kër gi jaamal nañu bu jëfee da ngay tiit bu waxee da ngay tiit koy def nii ki nga yëkkati lu ngeen jote ah Assane Assane waaw ki nga yëkkati lu ngeen jote ah Assane nit mooy wax ak yow de lan la dafa am ma réer léegi boo réerlee sama kar yi ñoo ko jël ah? boo réer li sama kar yee ko jël yow laay waxal bu ko laa laaj de soo buggee jàmm nag soobee yàlla damay seet dinaa foroo si benn kayit kayit amul tur léegi léegi li nga for lan la nekkul kayit kayit bi may seet ak boobu du bii du benn waaw kon man gisuma kayit kayit bu yem la bu toll nii bu yem fii laa fii la war a wadd naa ci biir néeg bi may newu fa. xool nga ci mbedd mi. naa ci mbedd mi wër naa foofu yëpp moo tax ma doon xool sànq si xar yi noonu te waa kër gi kenn fi gisuma fi kenn. waaw mu ñàkkoon. ay soobee yàlla sama kayit googu xam fu mu mën a dugg dina génn. ah la lion la lion. soobee yàlla. <laughs> juróom-ñaar. ay sàcc a bon. ngi def vocal yaa ngi ciy dugal waxi sàcc. <laughs> contrôleur bi ngay laa lii bi yaay ab sàcc la. Assane sa dafa araam bi ab sàcc la. maa ngi wax téléphone. waxi sàcc bi ngay dugal. dama ne la sama yoon nekkul sa wax téléphone sama xaalis. xam nga fi nga ñëw sama kii laay lijjanti. dèjà yaa ngi ah, tooñ fi nga toog sama parluwaa la. déedéet fii kër gi nga moom ah ah. kër gi kay ma ne kër gi ñun ñëpp ka bokk. sa wéranda mi ngi fii amul limite. bul ma taxal ah, génne sama jikko nag sama këyit gëneel sama këyit laay seet. loo ci bañul nag bañu ma nga ci génneel sama jikko fii nga xam kay xam léegi léegi maa ni dëkk ak ay sàccaa gën a bon waaw dëkk ak dëmm sax a tane ndax dëmm la lekk rey la benn yoon mu jeex waaye sàcc day dëkk ak yow di la comporte ba nga jeex tak xam nga sàcc nga wax man boo ma waxee loo ma warte wax dama lay nokk eh, kii Assane yàlla xam na loolu walla yàlla xam na loolu ma si dépassé dama taayal ci wax ji soo ma dépassé dama taayal ci wax dama lay nokk man dama tayel ci wax ji. wa da nga taayal ci wax ji. man taayalu ma xeex. fii nga may gis ni jaay sa ruu la tudd man xam nga jaay sa ruu xam nga jaay sa ruu. sama keer gisoo bima ñewé Dakar fi gisoo sama këyit caaroy la wacc gisoo sama keer dama la koy gisoo ko keppal sa li nga yor kon ko no waxe keppal sa li nga yor legi ma kepp la yow. Mm. legi ma kepp la ya ngi commencé di yegg sama kaw bopp bi ha ah. est-ce que de nga bak li ma la wax ya ngi commencé yegg sama bopp bi sa resa pou bu kaña yi. <laughs> moo taxit lu ma teg ñu sàcc. waaw foog xamal sa contrôle sa wax bi rek na sol tubay quoi na wax bi sol tubay taati neen bi nga ko def wax ji solal ko tubay parce que boo ko bàyyee noonu ma jënd rasoir. ah njàng ko ah yaa ngi toog waaw. ma ne ka ma bu mu jox ma xaw mu jox kii bi xaalis yow ba ma la yónnee boobu ba mu jox ma xaw ma naan jox ko fa xaalis bàyyi waa naa doon fa xaalis bobu ba legui demo ba. li eh. eh, demé xana ya, ni nga eh, waxee baaxul lan dem na fofu dem na fa ma dem boobe dama fa gën ma toxo tooxa tay xana xal xal xal xal xal xal xal xal mu ñew ala ah, ma ya xat lan. ara ah, bama jog de déedéet bu boobaa yow la mo lolu ñanko ko ak jàmm gi gone ak l'islam gi ko gone ko judd fi fi mu wara juddo yow mi xam xamo sacc xamo xamoo trian xamoo fen deug la la xamee ñanko dig deugal bi ba ci biir sama biir nekk faroo fi ben kayit wala gis ben kayit Eh, hmm? eh. këyit dugal lu sa yoon ne kii kii àndul ak xelam bul ko dugal dug fekkeewuloo gisuloo demal nga dox sa soxla demal fi ngay fubal fële hmm? gis na fi benn foro fi benn bu yem ni ko fi fii gisul forul bàyyi jàmbur wër nga wër nga naa ko fii la war a wadd ci ëtt bi wala ci néeg bi te néeg bi xool naa fépp new fa kon ci ëtt bi la war a wadd këyit lu mel këyit bi dafa weex tagga gak ni tol tol la nga ñëw yem laa ma ne moom mii ko doon laaj mu bëgg ma attaqué xex te man taluma xex na hmm, hmm. sa oh. ko yamal ci kuddu rek ñu roof la ci gaye xala na xala ka soxla la floor fa am ñaleñ ko keet gog de bis mo ko gisé xaliss bi weex ta lay génne la may may ah man waaw waaw bis bo gisone kayit gi na ma keet gaa ni ma may la safara ah ene ene kay ah gisoo waa eh. eh. gisoo ma kay cent franc yaa ngi nii bul wax loo xamul ah, kay bul wax loo xamul laa gisul cent franc moo moo la gënal mille franc cent franc yi cent franc yi teew koy mu fa teew nga gis ko ni moo gëm bi fa wax ko safara may seet gisoo ko damay tax safara ma ka xanaa gu yam kayit gu yem la waaw ah? waaw ndax bu bu kaale bu rafet. bu rafet xaw a dugal dugg ci biir xaw a yem ni jugal eh, sangu ji jugal sangu ji ngay wax xaaral la lan lay xaar jugal sangu ji jugal sangu ji xam nga wax ak yow looy wax ak moom fekkee woo gisuloo lan ngay wax ak moom ah jugal sangu ji yolo pel xaala jugal sangu ji kayit bu am a bind bind waaw am na bind bind waaw bind bind big bi waaw voilà ak ak bind ñuul waaw ak am am lu xonq turki jam cent ngi nii wax ma fu këyit gi ne. ba su këyit da ngay a benn cent franc. waaw waaw wax wax si diggante ñaata ñaata cent franc nga ma joxaat. dinaa la jox ñeenti cent franc nga boole ci bii muy juróomi cent franc maa la ko jox ci xol bu sedd guy. gu nekk jàmm gi ba mu nag tur ay tur ki jàmm xamoon naa ne boo ñëwee sa sama soxla faju yëf yi du jaas dama leen. waaw waaw waaw waxalu leer waxalu leer waxalu leer dëgg fa dëgg fa dëgg fa dëgg fa dëgg fa may wax. waaye waaye xoo kii ni ma lay de lan la. ki ki moom mooy ñamatu fii rek xool ñaar cent francs waxal bu leel naa la jox benn benn cent francs jox la beneen ñaar cent francs jox la beneen ñetti cent jox la beneen waa cinq ak bi nga yor waaw sept waaw sept ans waaw daa ah. nga sawaay sawaay sawaay sawaay jógal nga sangu ji waaw jox ko kayit ma jox sama lan jox ko <laughs> eh, eh, lii du dëgg eh, lii du dëgg barki rasulilaay mooy sama de ban kayit laa koy jox moo bi ma moom forom fay bi ma forom foofu ba xamoon naa ni ni nga ko jëlee da ah, dama jox mille francs laa xam ne këy boo am na ñale jox xaalis jox jox jox kayitam jox kayitam mu jox sa xaalis ma jox la may naa may naa may naa ñaar cent francs loolu loolu de jox ko jox ko la de bu ko <laughs> dinaa la ah! dóor de eh dinaa la dóor de da nga mënul yam eh këy gi mu këyitam sëñ bi jox ko këyit maa ko fal sama këyit diggal eh. jullit ak morom mi kii wax dof maa ko fal maa ko fal boo police mu wax lu leer sama këyit la wax wax yi dof lay wax kon xam ñu dem ci yoon jox ko demal si yoon ah eh, tey jëlu dem si yoon demal si yoon ñànk jógal sama bu indi kër indi kër du ma la joxoon kala naka kat ko ram di dëkk bi ba xamal waaye indi delu dëkk bi indi ma delu sax lan lay jox indi kër bi ban kay wala bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ki lu muy def bu kër gi dagg de xala ko lee <laughs> li Ismaïla Sarr moo ma ko jox. yoo ma ne Mbappé. Eh, eh, may ma man nga képp sa li nga yor. fukki million la ma yónnee pour ma sa li nga yor laa la wax sa a wu rëy. kan nga yor képp pour war ne ab sàcc nga trian nga. kan yaa maa kooki nga lii du 5 millions lii xam nga la 500000 francs dong la Penda Aïdara ma ko yónnee 500000 critère gu ma ko sax mi ngi nii sama tur ci nekk Assane Fall mi ngi nii na fang retiré guma ka nga ne que dëruux yow lee tax di nga saxaar waaye doo tàkk. ndax ab sàcckat nga. yow nekk Assane da ngay sàcc yow. damay da ngay saxaar waaye doo sàcc yow nekk da maa la waxoon téeméer dama la jox soxla ëpp téeméer lii laa xam ci gone gu gone gu gone gu yàlla yaral boppam fii ngay yeewoo nag tant que yaa ngi fi yeewoo njaw dina des waxam bi góorgóorlu ñàkk a fayda sa kanam gi mel ni. nokk sa doxin demal ah. jëlal yi nga yóbbu. Assane di ma bàyyi coow waaye xam naa li ma jox sax du ko mate wax yàlla gis nga yow. am na affaire doomu raam yi. am na non man affaire doomu xaraam yi noo mu ko mënee def. noo mu mënee def man ma bokkaat yow. naka sax di jaay nga may def affaire ñàpp ko nam la la la affaire doomu xaraam yi noo ma ko def. wax yëfu jàmbur léegi yab lu woo moom. yëfu jàmbur yëfu jàmbur. kan moo la wax yëfu jàmbur la. kii kii li wax ne xam nga moo gën a leer li nga wax. yow ba tey yow ba tey xam nga dofoo ku ñëpp sa nga sol yére normal di def yëfu nit normal da ngay dof dof lu woo waaye dof loo da bugg lu yomb nga def moo tax na eh, damay eh, damay saaga ndey de dégg nga bu wax ah waaye gaa yi leew de. Eh, xoolal yaa ngi commencé leew de lay nokk laa yaa ngi leew de. kan ngay wax yaa ngi réew. man maa affaire këyit maa ko fol maa ko fol maa la ko jox. maa ko teg sa loxo. borom borom feeñ na jël naa ko jox mënul ub sa gémmiñ. fa la yëfi jaamu luy ub sa gémmiñ yow. lan ngay wax yow da nga mën a téye sa loxo. su ma kan moo téye loxo su ma fa indi kayit bi. man maa man maa ko fol indi. yow yaa ko sàcc maa ko sàcc bi nga sàccee ñëw dama laa sutura. waaye su ma nekkee sàcc su ma nekkee salopard bu mag bu ndaw nga nekk salopard bu ndaw. yow yow yaa yow yaa salopard mag ma eh, nekk ndaw maa ko fol. waaw waaw waaw jeex na léegi sàcc nga rek nga lan. jeex na léegi sàcc nga waaye yow amul ah, am ah, yow yow ngay sàcc ba ngay jàpp la nga suba suba ah, sa xaalis sax boo nga sàcc ma xëyee dinaa woo ñeenti ponkal fii ñu takkal la dinaa wat sa si karaw bi wat sa sikkim bi wat sa tubaay bi soo woowee ñan ponk moo moo woo set ponk ñu ñoon noxal ba nga day sa tubaay kan ngay waxal ñaan kan ngay waxal boppu yaboy yow yow boppu yaboy koy waxal ah boppu yaboy ça va te la war naa loo waay toppal fële ngay boo nekkee nit ku baax ku am kel da ngay xalaat yow sàcc nga xelu ndox xelu jën am nga xelu jën moom nga yore yaa koy tas bi nga bu dee góor yàlla nga toog fa bu buse waay toppal fële laa jox xale góor ñu ñëw ñu téegal ma sa xom ba nga xam nga yow xam nga li nga xam yow léegi nga ñibbi dinaa téegal sa xoon yow nga ñibbi waat yow imbécile bi oh bopp yaa booy bopp kobo kobo bi nga doon imbécile bi yàq na sama yaakaar quoi day ngeen dee day ngeen bu ñëwee day tojjal yoro bu ñëwee day tojjal yoro